سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله خساء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى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 السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيرا إخوة الإيمان في الله إن التضحية يعني عيد الأضحى سنة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي من من العبادات التي عبدها الخليل نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فسنها الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى قال في محكم تنظيمه فاتبع اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إخوة الإيمان في الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واسيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ومن العدل إعتاء كل ذي حق حقه الله أكبر الله أكبر الله أكبر أنتم خير أمة أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة يقول جل وعلا في محكم تنزيله كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وتؤمنون بالله فجاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مسلم لا سيما العلماء لا سيما العلماء لأنهم المستحقون بالأمر والنهي لأنهم عرفوا ما نهى الله سبحانه وتعالى وما أمر الله سبحانه وتعالى فإذا عملنا واقتدينا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالأمر الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد مسينا في منهج النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فنحن بجانب المنهج أعاذنا الله منها الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأثيرا الله أكبر ما طاف المسلمون بالبيت العتيق وسعوا بين الصفا والمروة الله أكبر الله أكبر ما كبر المسلمون وما سلوا في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله أكبر إخوة الإيمان فالله الذبح في هذا اليوم سنة لأن اليوم العاشر هو يوم العيد يوم عيد الأضحى فقد دها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يعني في العاشر بعدما أفاد الناس من عرفات دها الرسول صلى الله عليه وسلم دحى بعدما سلى بلما سعى بعدما سلى صلاة العيد في يوم العاشر في ضحى يوم العاشر ضحى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة بكبسين أقرنين أبيتين بيده الشريفة يده اليمنى الشريف فإذا كنا نقتدي الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نترك اليوم العصر وننتظر يوما آخر إخوة الإيمان في الله العيد عيد الأضحى يكون في يوم العاشر من هذا الشهر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 وسبحان الله بكرة وأثيلا قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله يرحم يرحمهم الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ويدل هذا الحديث على أن العبادات لا شجوى منها إلا إذا استندت إلى مكارم الأخلاق وكانت من أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أعمال صحابته ولكن لا طريقة أخرى يمشي الناس كيف يشاءون بدون اقتداء الرسول صلى الله عليه وسلم فالمنهج منهج الرسول ومنهج أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال الصحابي الجليل جعفر رضي الله عنه للنجاشي أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء, ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبده نحن وآباؤنا من دون الله من الأوثان والحجارة والأصنام وأمرنا بالصدق الحديث وآداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء قال تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ورسول صلى الله عليه وسلم لا تباغتوا ولا تحاسدوا ولا تنافروا ولا تدابروا وكونوا إخوانا وكونوا إخوانا كونوا إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره دم المسلم حرام على أخيه المسلم إخوة الإيمان في الله ما نراه اليوم في هذا الزمان والله أمر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى يتقاتل الناس ويتخاصمون ويتدابرون ويتباغدون ويتحاسدون أين نحن الآن فيما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى إخوة الإيمان في الله فلنسل أرحامنا ولنعامل بيننا معاملة حسنة ونتعاون فيما فيه رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتعامل ولا نتعاون فيما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى التعاون والمعاملة التعاون والتعامل فيما أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول في محكم تنزيله تعاونوا على تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا الإخوة الإخوة الإيمان فإن الصدق من أعلى خلق الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الأخلاق الفاضلة الكريمة المميزة أخلاق الصدق والأمانة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا إياكم الكذب إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا جعل الله من الصادقين لا من الكاذبين الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيرا إخوة الإيمان في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي neyu mbooloom yépp di sant yàlla di leen ko santale moom suñu boroom subhaanahu wa taala di sant yàlla ci fekkeloo gi mu ñu fekkeloo waat julli ay gii ñuy wax tabaski mu nekk loo xam ni du lu yomb ndax yewwu ak muus mënta tax nga fekke ko ñàkk yewwu ak ñàkk muus mënta tee nga fekke ko kon fekke ak tal ci loxo kenn rek la nekk muy suñ borom subhaanahu wa yàlla nañ ko yàlla di defal ba mu yàgg lool ñu di ko yàgg a taxawe ñun ak yéen ak njaboot gi yépp di wax rek nii xutba it du jara yàggal ay fàttali rek la ndax lépp lu nit wax nit wax na ko ba noppi waaye dama bëggoon xam ni iid gi daal muy iidul adha bu leeree jullit yi ndax nag waruñoo fayee suñu xel waruñoo nekk itam di laam-laami mbir nekk en contra contradiction ci suñu bopp dëggal lii weddi la ca des ca boor ba mbokk yi ñépp xam nañ ni ñépp xam nañu dëggal nañu ni talaata juróom-ñeenti fan yi moo doon moo doon arafa te alxajju arafa su arafa wérut dara wérul am nañu ci woor sax am nañu ci digle ay ñaan am na sax ñu sant seeni taalibe ay ñaan ci ngay nangoo ni la arafa nga jàng it mu wér la ni yonent bi sallallahu alayhi wa ci bisu fukkeel ba gannaaw arafa ca bisu fukkeel ba ca la julli ayit جل راي تبسكيم موم صلى الله عليه وسلم جل خم يتد يوهي پر جنگل ديني نحن نك موي سنو راي كار موم لن يوار راي نحن موي اندي ديني يو جلد بي ننغي ننغواني تيلا عرفة نيان نتي يالا وار نتي سخينا ويتلكم نتي سكر نتي دي تاتان يرمني يالا أمسك قط يوكو تكرد ندوكو rey ci bis bi da ngay xaar ba ca gannaaw ëllëg bi lii daal ñun mënaguñoo xam nañ koy layyee ndax nag loolu loolu dara gënu ko ñàkk leer maanaam bu fekkoon lëndëm na ni xamuñu kañ la arafa maanaam loolu ma des na ko def waaye arafa dafa leer moo tax tabaski moom war nañ cee mën a bañ a juuyoo ndax suñ nee tey la arafa rek jullit ñëpp war nañoo mën a nangu ni ca ëllëg sa la tabaski beneen bi itam mooy màkk bi ñuy wax déedéet yonent bi kay mooy tabaski fukkeelu fan ndax su ndax suba bu ñu ko xaalee ndax ci fukkeelu fan bi la yonent bi mooy tabaski ci fukkeelu fan même bu ñu waxatul arafa bu ñu xamee tey la arafa fukkeelu fan bi ci la yonent bi tabaski yonent bi ci fukkeelu fan bi la tabaski léegi kon loolu dafa war a leer lii ñuy def nag dañ koy teg ci sunna teg ko ci jëfi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nag bu njëkk télégramme dana wàcc ca ndar ca gouverneur ndar Telegram ñu envoyé ko ci suñu mbokk kilifa yi nga xam ne ñoo yilifoon jamono bi yilif suñuy waajur yilif ñëpp mooy fu mel ne Tivaouane Telegram boobu ci gouverneur la daan jóge léeg mën naa am sax du jullit waaye ña ko wax ay jullit lañ mu jóge Niger walla mu jóge feneen fu demee noonu gouverneur wax ko waa Tivaouane ñu dabax ay télégramme ci poste yi boobu post mooy joxe communication yi lu mu gaaw gaaw poste rek moo fi nekkoon mën naa ak si heures ci bëccëg mag ñi daawuñu werante ci loolu dañuy naan ndox digal seen njaboot ak seeni taalibe ñuy naan ndox ñooñu gënoon a ragal yàlla ñooñu gënoon a xam alxuraan ñooñu gënoon a maandu ñooñu gënoon a jullite ñooñu ëppoon ñooñu ëppoon cër ci yàlla ci lu wér ndax seen barke rek la ñuy dundee ñoom kon ñooñu boo loolu ñu daan def telegram laa wax de lañ ko tegoon ku ne jàng na loolu ku ne xam na loolu su ngeen ko jàngul ci téere yitam dem leen ngeen laaj mag ñi lii mooy am ñun ñi ñëpp yónni nañ ñu bëccëg bëccëg dina dawal dëkk sàngam ni leen wari nañu dawal dëkk sàngam ni leen wari nañu gone yi gënoon a sawar ñooy taw dem ci dëkk yi war yu wër dëkk bi ni leen wari nañu waaye maandu mag ña nekk moo tax ñooñu kenn du ñoom ndax du ñu def mukk lu ñu tegul ci sharia mukk xalaatuñ ko du ñu def mukk lu ñu tegul ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax benn mag bu ma sa fay bu ma sa bu ma sa gis ni tey wari naa suba kaay leen ñu julli kenn mësu ko gis kenn laa wax kenn mësu ko gis ndax ñoom xam nañ ni naafila kenn du ko fay naafila julli iit naafila la julli na fi la ben mak musuko koo mësu fay te mak ñi yag nañu wari 11h midi waye daawuñu ñuko wote diko fay de kon ki koy wote ni kaay leen wari wari nañu sax waye julli suba la ñuy julli lan la ci djublu léegi benen affaire la ndax da ngay julli it ci bis bu dul bisu it ndax lolu mën na nek lolu question la donc il faut ñu delloo ci suñu xel ñëpp ñoo ci nek bu fekkee yaa ngi mel noonu boo waxee nit yi danañ ko def waaye bu fekkee yow sa wax damaa yëg ni man nga cay xas wala kuréel bi ma bokk nga cay xas man dama lay tudde kilifa bu matul kilifa ndax mën a yore kër ñi ngay respecté rek mooy ñiy liggéey di indi dara ñi yorul dara nag yaa leen yilif yaa leen yilif da leen di waxaale danga leen di séddaale danga leen di cëralaale ci bu fekkee da ngaa bëgg a yor kër gi ci lu normal loolu moo tax njàmbaar gi mooy nga fexe ba ka mënul woon man ka amul woon am ka ragalul woon yàlla ragal yàlla ka daawul jaamu yàlla jaamu yàlla loolu mooy mbir mi waaye bu fekkee loolu amul yow ban kilifa nga ñi am ngay waxal ñi man ñi teg ñeneen ñi mënul ñi amul doo leen fexe wutal yoon wu ñuy jaar pour am moo tax kenn du rasulullahi xoolal ni mu organiser azaka rek te jëlee ko ci borom diine ju mata ngoog diine ju mata ngoog moo tax bi Abubakar Sadiq toogee ci xilaafa gi li mu njëkk wax mooy maanaam xutbaam bu njëkk mooy nangeen ma jàppale maanaam jox ngeen ma seen mbir ma méngoo ko yéena ma ni yaa ñu yaa ñu doy ci mbir yi moo tax may sa kilifa wérul yaay sama kilifa moo wér may sa sëriñ wérul yow yaay sama sëriñ moo wér Abubakar daf ni jox ngeen ma kilifteef yéen ma ko jox maa ngi leen di ñaan ngeen dimbali ma ci bu ma jubalee dimbali leen ma ci jubal ga bu ma jàddee jubbanti leen ma Abubakar laay wax xalifa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daan ni nag ci ngeen di tudde ku am kattan bu dëngee ba bëgg a maate nit ñi jàpp leen ni kooka mooy ki néew doole ci man ndax ku néew doole kooku mu bëgg a maate def ko lu ko neex danaa def kooku mu am kattan may nangu àqam ci kii ba jox ko kee te duma ci dellu gannaaw benn yoon maanaam addaif minkum minkum addaif minkum mumkin yakunu qawiyan fii naa maanaam ki doyee di noonu néew doole bu ngeen ko bëggee noot maa koy dooleel man Abu Bakr As-Siddiq ñi muy waxal nag ñoom ay ñu tedd lañu ñu bari doole jàpp nañ ni ci doole bi ñu am war nañ cee mën a maate nit ñi noote leen ci déedéet déedéet yàlla ngi wax ni maanaam nit ñi dañu war a yërëmante yërëmante moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ni irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa yërëm leen ñi nekk ci kaw suuf bu ko defee ki nekk ci kaw di suñu borom yërëm la yow de yaa ngi wax nii benn bopp lañu maanaam Sénégal du takk ndax kër Seydil Hadj Malick li fi liggéey kenn mënut a fexe mu takk ndax liggéey na garanti na ko yow tijaan bi loolu ngay wax loolu dëgg la de Hadj Malick li mu liggéey ñun ñëpp ci lañuy ñuy ca njàngaleem mu rëy ma ak jëfam ja ak orientation ba ñun ñëpp ci la ñuy jëriñu waaye ndax la mu ñu sant ñun def nañ ko ndax li mu ñu sant def nañ ko bu dee cheikhul xadim radiallahu taala anhu murid yi dañuy wax ni réew mi mënta takk ndax cheikhul xadim li mu fi liggéey mën na garanti réew mi dëgg la waaye moom moom de liggéey na waaye moom la mu liggéeyoon la ñuy jëriñoo ñun waaye ndax ñun lañu sant ñoom ñu ngi koy def ndax Cheikh Khadim la mu santaane woon yaa ngi koy def loolu mooy question bi kon ñun dañoo jël liggéeyam mu baax ñooñu di ko jariñoo bu pare lànk bañ a def lañu la mu ñu santoon loolu ñu defe ne mën nañoo yóbbu fu baax mënuñoo yóbbu fenn mënuñoo yóbbu fenn léegi nag loo xam ni tàkk na ba noppi wutoo lu ko fay wutoo ndox mu koy fay xanaa nga naan du tàkk rek manam nga xam ne yow da ngay léere sa bopp du tàkk mais tàkk na ba noppi ñi ñu rey bal tëpp nga dee tàkkul tàkk na ci kooku ak famiyam kon nañ delloo si suñu xel fexee jëfandikoo li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ndax xëccoo àdduna wër sa jar lool benn bakkan boo ko reyee mel na na rey nga bakkan yépp ci kaw suuf boo dundalee benn bakkan من لا يدن الغبا كان يبتك وصوب ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا آه. ومن قتل مسلما فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا قسنا بارين من أنا رين يب بني boo dundalee nit mën leen a dundal ñu ñëpp mbokk yi nañ fexee delloosiwaat suñu xel te njàngale mag ñi ñu delloosi ko ndax mag ñi kat dañoo teel a xam lii may wax adduna nii rek la bindoo li nga fi wut ba mu tax ngay fen ba mu tax ngay wuruj ba mu tax ngay wor jàppal ni pour am am la boo bëgg gis nga am am bi boo ko dajalee ba noppi ñaari mbir moo ci am kër kër kër kër kër kër yàlla na fekk fi nga ko jaaree baax na waaye su baaxul danga koy dajale ba mu yemb ñaar mooy am mu dem bàyyi la fi yaa ko dajale woon léegi moom demaat na bàyyi fi nga toog nii di wëreelu yaa ngi ñëpp ngeen yem ñu naan kee gis ko ak bari la woon yéen te ngeen ci bët loolu walla boog demul bàyyi la fi waaye bi ko dajalee ba mu yemb ba bari yow yaa dem bàyyi ko fi ñeneen ñëw di ko jariñoo lii nag mënta ñàkk nag nga dajale ba mu bari loola demaat bàyyi la fi wala nga dajale ba mu bari yow nga dem bàyyi ko fi lii dong moo fi am ba àdduna tukk sosoo ba nële ndax loolu jar na saalit jar na wuruj jar na fer déedéet jaru ko kon yonent bi ne woon bu leen bañante bu leen dëddoonte bu leen wanante gannaaw bu leen foñante bu leen añaanante nekk leen ay bokk bokk pas-pas bokk yàlla bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk leen ci loolu bëggante leen ngir yàlla ànd leen ngir yàlla booloo leen ngir yàlla loolu lu am solo la te nag yàlla dafa wax yonent bi ni ko yéene fi gën ak ñi nga àndal ñëw yéene fi gën ko nag li tax ngeen gën fi mooy dangeen di digle lu baax di tere lu bon ba pare na gëm yàlla tey jëfe li ngeen di dégle li ngeen di tere kenn du leen te fekk looloo tax ngeen gën fi kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi taamuruuna bil maaruf wa tanhawna anil munkar wa tuminuuna billah looloo tax ngeen gën fi mbokk yi ndax loolu ñu ngi ci ndax dana bari ku lay wax sëriñ bu lay wax ni la jubóol ak say bokk nit day bëgg mbokkam day jubóo ki mbokkam nga dem këram fekk mu noonoo ki rakkam ak ki magam waaw bari na ku lay wax juboo ak say bokk ci kilifa yi nga dem fekk mu noonoo ak i bokkam ñu def nii te moom buy waare loolu la lay wax jubool ak say bokk bëgg leen nangam nangam te moom jubóowul ki bokkam moo tax yàlla ni woon afa taamuruna naasa bil berri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun waaw yéenay digle lu baax ndax yéen a jàng téere waaye it nag da ngeen di fàtte fàttelu seen bopp yàlla waxul nga fàtte sa bopp daf ni yaa ngi fàtte fàttelu sa bopp wax na dëgg ndax doo fàtte sa bopp bu doon lu ñuy séddale xéewal yu bari li ñuy séddale doo ci fàtte mukk sa bopp waaye nag bu jëf lu baax ne ñëwee wala ak jaamu yàlla wala def aw yiw ngay fàtte fàttelu sa bopp wax nga ko waaye doo ko def wa antum tatluuna alkitaaba te yéenay borom xam-xam yi yéen a doon jàng afala taqiloon du tere woon ngeen am xel nag am leen xel yéen itam nan ngeen di xamee li baax ak li bon di ko digal nit ñi ba pare du ngeen ci jaar yéen dem leen ngeen xool ñu bare bare bare ci ñuy digle aw yiw ndax ña nga ca ñuy tere lu dul noonu ndax bàyyi nañ ko dem leen ngeen xool leen kon fa ñu jëm àggaguñ fa il nous faut autorité boo xamante ni kenn kenn ku ku ko waxul waxu yàlla ak waxu yonent bi mënoo jaar ci kaw mukk ndax day gëm yàlla teg mbir yi ci yoon koo mën a doon boo jàddee yoon ñu teg la ci yoon loolu mooy doxal réew mi ab loi kenn du ko teg pour benn nit baa ñaari nit loi da nga koy teg pour ñëpp loolu nag sëriñ si génnuñu ci politiciens yi génnuñu ci autorités yi génnuñu ci borom alal yi génnuñu ci loi bi moom ñëpp la ko affecté tant que àgguñu foofu mënuñoo dem lan la yonent bi waxoon ba ñu ba ñu amee ku tedd ci ñoom jël alali jàmbur ñu di ko yum yumle kenn nangu ko wax yonent bi te jël wala lu ñëpp bokk de yëf yi benn waaye rek la jël tey bokk ci almaxzumiya fay bu tedd bu kawee ñu di ko yum yumle ba mu agsi ci yonent bi ñu ne ku ko ñemee wax ñu ne xanaa usaamatu li tax ñu wax ko mooy usaama dafay reeloo yonent bi léeg ñu ne moom xëy na mën naa wax rek ba bu ko waxee du doon dara ba usaama demee di wax ak yonent bi ba yàgg mu indi wax jooju fekk yonent bi yëkkoon dafa ni bëri taxaw daal di xutba ñàkk tooy xëpp ci saasa ni ni di alagoon ña leen jiitu woon mooy ku tedd te baax bari mbokk am alal su sàccee kenn du ko def dara kenn du ko def dara dañ koy bàyyi su fekkee ne nag waa ji amul alal bariwuli bokk su sàccee ngeen dajale ko taxawal nit ñëpp taxawal atte bi ci kawam mu ni loolu moo alagoon ñeneen jiitu mu ni duma dal mukk daan ni wa aymullahi law anna fatima bintu rasul sallallahu alayhi wa sallam saraqat la qataatu yaddaha yonent bi ni man day maa ngi giñ ci yàlla ni bu fekkoon fatima moo sàcc danaa ko taxawal ci kanam borom mi dagg loxo loolu nag gars yi duñ ko def léegi bu dee yaa ngi wax li leen neex loolu neex defal lu la neex defal boo waxul li la neex ña ngay seet foo juumi ñu ñu yóbbu la ci kaso bi loolu problème la ci réew mi te jàmm mënta am lu dul ci maanu mukk du lu ñuy wax lu ñuy jëf lay doon jàmm du am mukk lu dul ci maanu ku fara yow lu mu def baax ku faru la yow lu mu def nga teg ko ay daan ma ni loolu kuy réfléchir mbaa nga gëm yàlla mbaa lenn ci mbaax nekk sa xol mënoo nangu loolu mukk mbokk yi nañ delloo suñu xel te def ni def xam xamal suñu bopp ni ñu ngi ci retard bu méttee méttee méttee bu dee ba ñun ñëpp ñu nangu ni amatuñu kilifa yëg ni crise d'autorité am na crise morale am na crise économique am na kon nag bu ñu réew maa ngi dem dafa leen jàpp leen ni feeg réglé wu ñetti crise yooyu maanaam dara réglé wu aqulu qawli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum li saa'il muslimin fa astaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwa tawwab الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واسيرا لا اله الا الله اللهم اغفر لنا وارحمنا واستر عيوبنا بسترك الجميل يا ستار ني دالو دي nuyu mbokk yi di leen sant di leen gërëm di wax ni nag dana tey ñu bëgg mbëgg mañ daan bëgg mbaa bu ko ëpp ndax tey doomu daara moo nekk suñu meer lii ma doon wax nii ci alxuraan ji ak xadiis yi ni ma ko waxee noonu la ko ma ne te ku jaxasoog moom xam nga loolu loolu it dafay firndeel ni daara mënut a tardeel nit bu dee lañ fay def yaa nga ca di ko def kon moom doom la ci kër gi taalibe la ci waaye nag suñu autorité la te ñun dañu waxoon ni anzilu naasa ala manazilihim yonent bi ne woon na nit ñi na leen wàcce seen wàccuwaay tey Abdourahmane Diop maire de moom lañuy ñuy di ko ziar di ko sant ndax nag li ñu sant mooy ku ne cër ba ko yàlla jox jox ko ko te d'accord ca ñu nag ñu d'accord ci ba pare bëgg ci nag bëgg ci nag ndax fii bi fi dara niwul moom képp moo nangu woon a bàyyi njàngam ñëw fekk ma fi ni ma dama lay wéttali ñépp kenn d'accordul man sax d'accorduma waaye moom nangu woon na loolu di fanaan fële tey nga xam ni kenn nekku fa alhamdulilah rabbil alamin bi nga xam ni loolu tardé na ko ndax moo ne li mu waroon a jàngale jàngaat na ko ci diggante bi ba tey alhamdulilah mooy suñu maire ñi ngi lay nuyu jiital la ci nuyoo bi Abdourahmane di bëgg ci sa teewaay fii nekk suñu autorité nekk omdatul balad Abdourahmane Diop di nuyu bu baax a baax albiata al ashariya albiata al ashariya mooy ustaas yi nga xam ni université bu al azhar moo leen fi yabal ñu diñ jàppale ci daara ji مي الأستاذ العالم العلامة أحمد المصري وكذلك أخوه محمود العارف بالله المخلص محمد محمود مي في أكثر خارج بين لين في فك سيدمبو نيار نيو نيون لا نيو نيكال تي دارا جي لوري نينكي سانت يالا نداخ لي ماي واخ تي ماغني ماغني كين دي نيوم مانو نيو لينا داب seen ñaan rek moom ak seeni liggéey ci la ñuy dund ñi ngi fi di jàngale tajwid di jàngale di yee nit ñi di participer ci orientation wu jàngalekat yi kon nag yàlla na leen yàlla fay albiat al azhariya ah al azhar sharif ayadahum allah wa nasarahum wa xamaahum wa rafaa qadrahum dinay suñu mag di suñu kilifa di suñu xalifa muy alxaaj magat booy muy am aw turam dëgg-dëggu Ousmane booy la ndeysaan euh, bu ko ustaas fekkee mu toog suñu bët dañ koy nuyu xam naa ne ñoom liñ njëkk a jàng ci wolof mooy sëriñ ngumba loolu lañ koy wooyee ndeysaan fa tabaarakallaahu ñu koy ziar mu ne kilifa gu baax ci nun baax ci njaboot gi lewet di digle aw yiw di tere lu bon ba pare kenn du ko fekk muy wax lu dul noonu mbaa muy def lu dul noonu te kenn ku nekk ma nga ba pare di la ñaanal yàlla ba pare di la digal kooku ñu ngi koy nuyu di ko ziar di di di ñaan yàlla mu yàgg ci suñu kanam beneen bi mooy suñu kilifa alxaj Magat Sow fii ci ñi gën a dundal barab bi ci la bokk ndax léeg-léeg moom mu mën a teew ci barab bi ci jamono yoo xam ne sax ñun duñ ci mën a teew moo tax defar jàkka tabax ko moo gën a yomb di ca julli mom sax na ci jàkka te lol nak lu jafe la yonati mo ne ila raaytum man ya'tadu al almasajida fashhadu lahu bil iman haj magat lolou moy jikom depuis Dakar nak depuis Dakar fu mës a dëkk fu jàkka nek ci wetam rek bu julli jotee fa lay jullee ji léegi nga dëkk sax jàkka te yow do fa matal julli juro kon lolou ciir la du caxaan du ko kenn mënu ko de bala ngaa xam ni jàkkalee la nga di ko jéem ñaari fan ñetti fan rek nga commencé tardewaa mu boole caag di ñaanal barab bi ca njëlbeen ba nëgën di ñu wéttali di wéttali njaboot gi damay faral di wax am mag mu nekk sa biir di wéttali njaboot wéttali ay gone dafa am solo kon nag ñu ngi koy ziar di ko nuyu ci bis bi di ñaan mu yàgg fi lool ndax am na ñoo xam ne yàgg fi day dalal xel tabaarakallahu e ko defee nag ñu nuyu mudirul madrasa cheikh sàmb ak rakam yépp nag cheikh dana jàngale dana yar dana taxaw léeg-léeg nit ñi defe ni sax ñi nekk fii par exemple dëkk ci kër gi nekk ay rakam ak yooyu di jàngale dañuy defe ni sax léeg-léeg xëy na du leen wax dara waaye kenn ci ñoom ñëwewul a tàll ndax bu waxtu jotee rek taxaw na bu waxtu jotee taxaw na te boo bu la gisul deux minutes rek dana sore sa portable fan nga nekk loolu nañu ko ci sant bu baax ndax ñépp la yemale ci loolu ndey booy newoon na fi sama doom di góorgóorlu bu baax waaye mu ne ma papa ma ni ko mu ne ma cheikh di mayul kenn na nga foyee liggéey bi ah, ma xam ne ci ni bu doon woyofalal kenn mën na ko woyofal ndax jigéen lëtt ci kër gi la bokk kon loolu ñu ko ci sant résultat yi fi am tey am na ñoo xamante ni ñu ngi ci université yi boo demee Bambey am na ñu nekkoon fii boo demee Dakar université Anta Diop am na ñu nekkoon fii boo demee Thiès am na ñu nekkoon fii fi lañ jóge boo demee Ziguinchor am na ñu nekkoon fii fi lañ jóge am na sax daaw ak daaw ju ñoo xam ne am nañu licence te ni mu introduire ci ndimbalal Yoro saw njàngalem français bi ci biir fekk moom tabarakallahu mën na ñaar yi ba ñett yi sax dana wax arab dana wax français dana wax anglais nekkoon département arabe monsieur Anta Diop tabarakallah mën a saytu mbir mi loolu dañ ci sant yàlla ndax mënoon nga ko introduire te doo am ko ko mën a yore loolu ci xéewali yàlla yi la bokk yàlla na yàlla yàggal ko fi te dëgëral ko kattanal ko fa tabarakallahu loolu itam nekk lu rëy ci nun ndax nag fa tabarakallahu am na secteur yu bari boo fa demee da nga fekk jógee ci daal loolu seen liggéey la ñoom du suñu liggéey ñun ndax léeg-léeg nit ñi ma sama doom a nga fa mbaa yaa ngi koy gis fekk man xaw ko sax gisuma ko xaw ko kon ñoom ñu yore lool di ko doxal yàlla na yàlla fay te yàggal loolu seen loxo ndax loolu mooy mbir mi nag mooy liggéey ngir yàlla bañ a xool ki la jox doomam bañ a xool ndax mi ngi lay seet si bañ a xool ndax mi ngi def dara loolu boo koy xool doo am payu yàlla ñun dama daan wax ni man rus naa di fayu nit xaalis pour jàngal pour jàngal ko alxuraan rus naa ko rus naa génne nit ndax dafa fayul alxuraan dafa fayul jàng man jàpp ma ni alxuraan ki ko bëgg a jàng dañ ko fa dañ ko war a fayu pour jàng mësuma génne élève depuis 76 laa ubbi woon école mësuma génne élève ndax dafa joxewul mukk musta am xalaatuma ko sax fu ma mas toog di fa jàngale bu ñu séddalee ña fa nekk ñetti cër benn bi du fay benn bi benn ñaar yi du ñu fay ñaar yi du ñu fay waaye dañuy dund nag lool ndax wërsëgu yàlla ëpp na lool walilahi xazainu samawati wal ard loolu nit ñi dañ ko dul bàyyi xel man nga nekkal yàlla ci li ko neex di tumurank ak di dépendre ci ay 1000 francs ay 300 francs non non booba dafa fekk yow dëggaluloo mbir mi loolu leer na ñëpp ndax cheikh mi kat mag la dootul gone ña mu àndaloon seen promotion boobu ñun ñoo leen doon jàngal ña ci ëpp ci jamono boobu duñ ñu jox dara ba fii ñu toll nii li li règle bi njëkk mooy mënu bu leen xalaate nit ku ñëw jël engagement ngir doomam fay mu waxal boppam ne dinaa participer nangam dem ba yàgg defu ko wala mu wax ko pare génn ca ngeen génne xale bi ndax dafa joxewul mosu fee am mukk feeg yaa ngi bëgg a jàngal Alxuraan dañ la koy jàngal ñun nga joxe nga bañ a joxe loolu it ñoom ñooñu ci dimbali tabaarakallah ko defee nag kon alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi leen sant ngoon ñu ngi leen di sant bu baax monsieur Diop ñu ngi lay sant bu baax moom ndeysaan égyptiens yi bi ñu ñëwee dem këram fekk ñaari soxna ne fa dañoo tiit bi ñu ñëwee li ma jëkk wax ñu ma wallahi ngoon asad asad huwa asad maanaam ngoon gaynde la ma ne leen gaynde ñu ne ma gaynde la lu tax ñoom ñaari jabar yi ko séq nii te dara yu ma mu ne ma duñu xeex ma ne ko déedéet mu ne wallahi huwa asad loolu dafa yéeme ma ne ko demu len keur abib dem ngeen fa demal xamni moy ben beneen asad la asad sani la bu ko defé nak kon lolu moy mbir mi boo defee ñi len sant bu baax di leen def di sant bu baax Badou gay ni ko gay do mu doomu haji la min gay bayam fi moko joxe won ba pare jël këyit ya top ko indi ko motax tax yiw bu fi def fi kenn du ko ci ëppale moom ak alxaaji Badara Sylla donc ñu ngi koy nuyu moom Lamine di ko ziyaar waaye di jaarale nuyoo bi ak ziyaar bi ak cofeel bi yépp ci alxaaji Badou Gueye fi nekk teew ñu ngi ziyaar sa papa bu baax e fa tabaarakallaahu di nuyu suñu mbokk yu baax yi am nañu monsieur Sagna professeur moom waxuma dëkk gi mu dëkk ak ñun waaye njariñ li mu ñu amal ci farlu ci di ñu formel gone yi di ñu leen jàngal di yeete lu ne ñu di ko daj ba pare man ñu ci jàkka ji man ñu ci jàkka ji loolu leer na seen màggat ñii kon monsieur Sagna ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan yàlla yàlla na yàlla barke la te yëkkati la ca kaw te yëkkati la ca kaw di sant Cheikh Ibrahima wadd moom sama goro la ndax magu ndey ci Wade la ba pare boole ci yaru lool joxe cër lool te tabaarakallaahu njaboot gi ma am mooy seen nijaay waaw ñoom kër Boy moom ñii lañu am ci nijaay waaye ñi ngi lay ziar bu baax di kontaan te itam di wax ni àndandoo bi rek mooy li ñu gënal ñun ci lépp mooy li ñu gënal ci lépp ba tabaarakallaahu Habib ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci teewaay bi ak jàppale gi ndax wax dëgg yàlla kenn bëggu la te wéttali ngeen jàkka ji wéttali mbooloo mi te jëfandikoo ngeen sunna itam nag waaw fa tabaarakallaahu Pape ngi lay sant bu baax ci teewaay bi rëy na lool ci noonu te it du lu tuuti du lu tuuti ndax li tax mooy ku mu neex def li ñëpp di def waaye nag boo bëggee ngërëmal yàlla foog nga soppi li ñu tàddeel mooy def li ñëpp di def yàlla na fekk muy la gën yàlla na fekk muy la gën bu ko defee ñu bàyyi xel ni loolu mooy mbir mi dëgg-dëgg et eh, ñi ci des njaboot lañu ñu ngi nuyu bu baax monsieur euh, suñu goro bi monsieur Dia di ko ziar ndax moom fu ma sa nekk ma nga ñuy jàppale école ba la mu nekk mooy école privée ba du so xale bi jógee fii sax du la soññi mu nga lay aar mu nga lay orienté Dia loolu yëg nañ ko kontaan nañ ci monsieur Dia tabarakallahu te ñoo bokkoon école 1 ca Hadj Maguette Sow école bu barkeel loolu nag bu barkeel bu bari xéewal léeg-léeg mbir dana barkeel ndax ka fa loolu dañ koy fàtte nag loolu leneen nit barab dana barkeel ndax ka fane monsieur Diagne ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di di kontaan ci wéttali gi ak teew gi ak jëfandikoo sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëfandikoo sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam et wax dëgg yàlla dañuy kontaan Aline Boy gestionnaire tabaarakallahu moom moom mi ngi géré bu baax boo laajee ñoom Ablaye Diop danañu ci wax dara suñu ustaas bi nga xam ni tey xutba gi moo ko bind loolu maa ngi ciy bég lim ma bindal man mënuma ko liir lépp moom Ousseynou moom Ousseynou mu ma kontaan nag ndax da nga naan ko Ousseynou aaye sàngam fan la nekk rek mun la mu ngi barab sàngam du ko dem di ko seet man su doon man a maa ci ca téere kër kër kër kër bu bëgg koo génne ndax ñi nga xam ne dañuy woote ak sëriñ te buñ doon liir alxuraan bu weñ dalee ci benn lettre bu weñ dalee ci benn lettre fokk ñu dàq weñ wi pour lire lettre bi ja loolu doy na waar te dana am nag koo xam ne na sëriñ la waaye buy lire alxuraan bu weñ dalee ci ci lettre bi ci xaraf bi foog mu dàq weñ wi pour mën a lire loolu kooku nag dalul ñoom xasee bi ñi tabarakallahu jàng nañu am na ay diplôme maanaam boo leen santee dara ñu génne ko fi mu war a génn yëpp ci alxuraan ñu jox la kon yow ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm Ablaye Diop noonu la mel ànd ak seen rakk Babacar Boye fa tabaarakallaahu loolu rëy na lool ci ñun di leen wax ni yàlla nañu yàlla may ñu julliwaat julli yu bari déwén di sant imaam imaam Mbodj ñu ngi koy sant bu baax ndax sax na ci jàkka ji di ko taxawal ci waxtu juróom bu ñu fi nekkul mu jiite jumaa loolu rëy na trop tabaarakallaahu yal na yàlla dëgëral ko kattanal ko aar ko sàmm di sant nag béy ndax bi ñu affecté bi ñu affecté Ousseynou ci alquran jiñ ko dénkoon dafa ne béy doy nga ma ci yoree xismu taxfidil quran bi maanaam xismu taxfidil quran bi doy nañ doy nañ ci kon nag doxalal ñu loolu mu yore ko yore bu sell tabarakallahu sonn ci lool sonn ci lool ñuy sant itam docteur Diop ah Diop yàlla na yàlla saafara docteur Diop ndax dafa tawat moom ak docteur bopp docteur bopp ñoo daan ànd di fi teew docteur bopp fa nga jógee sori na du fii bëgg jëfandikoo sun na sagata ba fii loolu dafa doy waar ngir jëfandikoo sunna yàlla na la yàlla fay docteur bopp yàlla na la yàlla fay yàlla yàlla dëgëral la yàlla yàlla kàttanal la am na sax ñu bëggatul gone yi jàng ndax bu ñu jàngee yow ku jàng ñaari nit ñoo fiy waree def la mbaam war la ab sëriñ ak politicien ñooñu ñoom dañuy war a ñëw waaye daara ji de kuñ ci formé benn sëriñ du la war di dañal benn policier du la war di dañal kon nag Jóob yàlla yàlla fay la sa taxawaay ci sunna mu jaral la taal sa oto sagate ba fii pour julli si ndax it tey la tabaski nag jaaxaan baaxul tey la tabaski de na ko ñëpp xam tey la fukkee la fan xalaat suba fukk ak benn ku la wax am ñuy tappale di wax naan tabaski ñetti fan la wallaahi waxuñu dëgg ñetti fan la dañ koo bind ñetti fan la ci boo amul tabaski ja ku amul tabaski ñetti fan la dañ ne boo ko amul tey bu ëllëgee may nañ la boo ko amee nga tabaski boo ko amul bis ca topp may nañ la boo amul nga tabaski boo ko amul bis ca topp may nañ la boo ko amul nga ba ca amul bis ca topp may nañ la boo ko amul nga boo ko amee nga tabaski bu tàkkusaan jotee nag ca bisu ñetteelu fan ba maanaam tabaski wàcc na la ba déwénati yow nga yow sa xar démb di arafa tey du fukkeel bi nga ne da ngay xaar suba maanaam loolu fan nga ko teg ak kan ngay déglu ci loolu mbokk yi loolu xel sax daf ko nangu wa tabaarakallahu kon ñu bàyyi xel loolu bu baax waaw nga bàyyi xel bu baax ci loolu ñuy sant bu baax a baax Ablaye Gueye ci teewaayam ak di nuyu papam bu baax a baax et Mouhamadou Fall nag moom ndeysaan bu guddee day wër làmp yi bu tàkk rek mu fay robinet buy xel li mu tëj ndax moom fay ga fay ga la xam na mu toll day wër bu guddee di fay làmp ki fay tëji robinet ak di xool fu bal la yal na yàlla fay la ci taxawaay boobu fa tabaarakallahu bég nañ ci loolu suñu mbokk yi jóge Ndëmbur itam alpha ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax leen wax asan wa sahla di sant itam tabaarakallahu professeur Ndiaye ci taxawaayam ci jàkka ci ak professeur Diop incha allah di leen sant bu baax Tamsir di sant ñooñ seen taxawaay ci jàkka ji salawaatul xams yépp dañ koy jullee fii bu ñu salaatoo ñoo may jiitu ci jàkka ji tabaarakallaahu loolu nag ci la ñu mën a fonke nit bu dee diine la ñor foo bokk nekkatu fi mi ngi mel ne nit kuy jëf ci yàlla nga naan ko noo sant ak fu kuy sa bàyyi yooyu yooyu yooyu yooyu yooyu doxul doxul yéen ñiy jàngale xam ngeen ni aw sant mënta tax nga xam dara les règles grammaticales ak orthographe maanaam sant aw sant rek tax nga xam ko te jàng ko mënta am caaxaan baaxul nag fokk ngeen delloo si seen xel e eh, Mouhamadul Bachir ñu ngi lay sant bu baax nuyu ñu sa waa kër te jotal la ñu suñu nuyoo ci ñoom wa tabaarakallaahu suñu eh, ndongo ñu ngi lay sant bu baax oustaz ndongo di sant nag suñu entrepreneur suñu architecte léeg-léeg mu tracé ñoom Ousseynou dégg naa Ousseynou sax fan yi bi muy réparé fële mun naan dafa siyaar nangam nangam ma ne ko demal nga gis euh, suñu architecte Massayer li mu la dessiné dara du ci tox boo ci jaaree da ngay génne xaalis bi nag jaaxal ma e bu ko defee kon mbir yaa ngi noonu eh, wax dëgg yàlla suñu sañoon ñëpp la ñuy tudd seen tur waaye xat na te dañu am liggéey bu ñuy liggéey bu ñu fi jógee di sant nag suñu kilifa yu jigéen yi. muy aja fatou boy tabarakallahu ñi ma fi tuddu mo len yar mo len yar son ci ñom lool di sante itam um abdurahman ndeytu boy tabarakallahu ñi ngi len sante bu baax ci taxaway ndax xalé yi ni ñu dajalo tapu ci ci nun itam ci seen ndigal rek lañ ko jëlé ndax doom dafa jégué yaay waaw dafa jégué yaay waaye loolu noonu amuñu boo leen daan sonal it amuñu ci sikki sàkk loo leen def neex na leen loo def njaboot neex na leen ndax xam na ñi ñu baax rek nga ci jublu e tabaarakallaahu di sant ummu taha ummu taha wala ummul xayr ah ndeytu wàddu booy ñu koy sant bu baax ci taxawaay bi ci gone yi moom la gone yi gën a xam waaye moom it moom moo ma gën a xam gone yi moom gone yi moom la ñu gën a xam waaye moom it moo ma gën a xam gone yi léeg-léeg nit bu jógee fi ñëw nuyu ma du ma xam waaye bu ko def ci seen eh, kii de sama waajaa diw mu ne yow yaa seeti xamme wuloo ma sax mais it moom dafa may xam ne eh, bu ko defee ñu ngi koy sant ci taxawaay bi ak eh, diri diri daara dafa jafe dafa diis daara dafa diis taxaw di ko di ci nekk guddeeg bëccëg loolu dafa jafe te moom tabaarakallaahu ñoo sasandoo fii moo tax bu ma laajee dépense léeg-léeg ma ne ko nag eh, ñun ñoo fi toxandoo ah, yow jiituwuma la fi comme jiituwuma fi ku ne na géré boppam rek ah tabaarakallaahu e eh, di nuyu rakkam maam Kaali Diop eh, di ko ziar moom itam beneen daara la yor ca Dakar sonn lool ci njaboot doomi day tuwaat yi moo leen yor foofa ca Dakar ba ñu am seen i am na ci ñu ca ba ñuy liggéey loolu lépp nag ak yaatal ak ndimbalal yàlla yàlla na leen yàlla dëgëral kattan leen barkeel seen jaboot yàlla na ko yàlla def eh, bu ko defee Mouhamad Boye Babacar booy yéen am ngeen ay mag yu ngeen topp ci ñoom su ngeen àndandoo insha allahu lépp dana baax e bu ko defee léeg-léeg ngeen jaar ci Habib Dia jël fa conseil ndax day am yu muy xam moom tabaarakallahu dana ci baax eh, ko defee kon defe naa ni docteur kon xam naa foofu la ñu yemale mbir mi ndax fi ngay dellu dafay sori bu ñu xoolee ñun suñu bëgg-bëgg sax mën nañ fi yàgg waaye bu ñu la xalaatee yow du jóge sagata te ci kore gi yaa ngi fi woon tabaski yaa ngi fi sunna ngay doxal yal na yàlla fay la sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na la fay yal na yàlla nangul ñu kon nag ñun ñëpp ñu bàyyi xel bu baax a baax xaj bolle eh docteur doyen bolle seen mu ko mbaxane bi dafa njëkk lool boobu maa ngi koy xool rek xam ni waaw doyen da nga def ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm da nga daan toog nii ci kanam ma di la gis ngay buuxante ba ñëw ci kanam bolle ndax moom ci daara ji la bokk léppam fii la ko def loolu itam ndax ku jàng jàngaloo ko mu am liggéey wutaloo ko mu dellu def la kilifa war ngaa yëg nii ku baax la ku la fonk la kon nag boole ñu ngi lay wax ni da yaa ngi suñu xol comme li nga nekk ci xolu njaboot gi yépp tabaarakallah yal yàlla dooleel la kàttanal la aar la sàmm waa e, waa rajo géewul TV géewul TV ñu ngi leen di sant bu baax waa leer ak waa leeral tabaarakallah bu ngeen demee nag e, xam naa du ñàkk ngeen woo ngoon wala keneen ngeen àndandoo segg li ngeen ci segg pour génne ko fa tabaarakallaahu ñu ngi leen di sant ci taxawaay bi e di leen sant itam ci jël bi ngeen jël si julli gi yal na yàlla dëgëral kàttan nañ leen tey yokku leen ba ngeen nekk télévision bu mag a mag a mag yàlla na ko yàlla def yàlla barkeel seen liggéey yi Cheikh Omar Sow ñu ngi lay nuyu di la ziar tey di di di yëg jàppale gi nga ñuy jàppale ci jàkka ji di jàppale sa bopp saxal fi nodd saxal fi julli léeg-léeg tàkkusaan ku dugg ci jàkka ji sax fekk fi loola rëy na lool ci ñun ko yàlla yàlla doole la kattanal te fay la ay tuyaaba yu bari di nuyu borom kaas bi nag su ma ko waxee incha allah mooy xaj bu yë bi may ñëw rek dama yàkkamte wa fàtte mbaxane waaye ma nga samp xelam yore mbaxane mi ma ndeysaan eh fa tabarakallahu yàlla na yàlla wéral yaram yi bu ko defee ne kon sëñ màggat nga joxeel ñu ñaan eh bu ko defee ñu ñaan pour ñëpp xaj mag a koy joxe lu من لا إله غيره انقطع الرجاء إلا منك وخابت الآمال إلا فيك وسدت الطرق إلا إليك يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا عيبا إلا سترت ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مسافرا إلا رددته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم أقمنا أنفسنا تحت هذا الميذاب المحمدي حقيرين ذليلين مذنبين مشفعين فيسر لنا أنوار تجلياتك الإلهية وأسرار ملائكتك القدسية وهمم أوليائك الربانية وفيوضات حبيبك المحمدية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما اللهم إنا نسألك يا رب يا الله أن تعيد هذا العيد علينا باليمن والبركة والسعادة واليسر والصحة والسلامة يا رب وأعته على جميع المسلمين واجعل بلدنا بلدا صالما آمنا مطمئنا يا رب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اولئك